may aussi ma nuyoo sama waa parti Synergie républicaine nga xam ne moom laa jiite. di nuyu mhm. aussi suñu coalition euh, Macky 2012 nga xam ne mooy coalition wu président de la république. Euh, di wax ni xam nga biiri parrainage man dama ci nekk à à l'aise mhm. ndax euh, principe bi d'accord nañ ci. ñan ñoo ci d'accord. parti politique yëpp. Hmm. d'accord nañu ni. ba def ko modernisation des partis politiques. dafa bokk ci quinze points. rationaliser la ñu d' accord wala parrainage. maa ngi ñëw rek maa ngi ciy ñëw. waaw dañoo war a moderniser les partis politiques. Mhm. yóbbu ko référendum ñu voté ko. Mhm. ensuite parrainage nekkul loo xamante ne bii le président Macky Sall moo ko bind ci constitution bi. fi la mhm. ko fekk aussi loolu dafa war a leer. d' accord 1963. pour nga nekk bi mu fi fekk waxuñu ko. waaw bàyyi ma ñëw rek bi mu fi fekkul la ñuy wax. waaw bàyyi 1963 day mel bu ñu ko waxee. Mhm. dafay mel lu mu jël rek dugal ko ci biir rek déedéet. 1963 mhm. parrainage bi ñu fi woon. pour nga mhm. nekk candidat il fallait que 10 députés. parrainé la. Euh, ñu réformer ko ñu modifier ko en 1968 pour nga nekk euh, candidat il faut que 5 députés ak un parti politique euh, parrainé la. en 91 ñu confirmer ko ci code électoral bi ba ñu yegg ci référendum bi. ñun ñëpp d' accord nañu ni 300 partis dans un parti dans un pays dafa ëpp ñëpp d' accord nañu ci alors maintenant dégg naa seen. argumentaire mais est ce que 300 300 partis égale 300 candidats. non maa ngi ñëw mag ngi ñëw dégg naa seen argumentaire parce que nag euh, li dafay wane aveu opposition bi. Mhm. maanaam 1 euh, pour cent du fichier ça fait 65000 bu fekkente ne bi yow pour nga gagné ah wala pour nga dem deuxième tour il faut sax nga yegg vers les 2 3 millions. bu fekkente ne bii 65000 signature waxuma vote de 65000 signature mënuloo ko am wala ragal nga koo am ça veut dire que am nga yow am nga am nga aveu wu da nga ragal dem élection bi ci tegu xam nga dégg naa leen ñuy wax naan euh, euh, président euh, dañoo bëgg sunu camp dañoo bëgg pare na ñi ñu pare na ñi pare na yëpp opposition bi ñoo xam leen ça veut dire que Sénégal yooyu yëpp respecté wuñu leen. parce dafa mel ni les sénégalais sont corrompus. bu ñu nekkee ci bari na ci ay corrompus non waaw dafa ah, bari na ci nag waaw d' accord corruption ah, mais bari na ci quand même ñoo mm-hmm. wax ni quand même état bi mën na corrompre wala euh, sunu candidat mën na corrompre les 65000 là loolu je pense que nañ koo teg ci kii mm-hmm. li ñu war a waxtaanee kay mooy modalité bi. Mm-hmm. parrainage d' accord nañu ci. d' accord gis nga man depuis deux ans ñun suñu parti xam nga lu ñu proposé woon. élection de représentativité. pour parti yi nga xamante ne bii mosu ñu dem élection donc loolu vraiment euh, man moom laa bëggoon a wax ci ci ci ci parrainage bi encore je je rappelle Pape mhm. xam nga depuis 2012 mhm. woote nañu six fois six fois ça veut dire que presque en moyenne chaque année on a voté te vraiment kon affaire élection Sénégal fii rek la nañ ko d'accord effectivement kenn mënu fee sàcc ay élection d'accord euh, docteur Diouf moom li ko jaaxal mooy li jaaxal itam ñu bëri parce que dañu naan parrainage bi euh, wax ay la yéwén ci li bokk na ci liy filtrer candidats yi. Mm-hmm. su ko defee itam ñu am ay candidature yu sérieuses loolu ñëpp war nañ ci mën a ànd. Mm-hmm. bu ñu jàppee parrainage maanaam 1 pour ci fichier bi. Mm-hmm. jaadu na candidat bu nekk. bu fekkente ni jàpp ngaa gagné élection nga mën a am signature yooyu. ndax loolu ko jaaxal itam warul a jaaxal. waaw jëf jërëjëf Pape Ngagne xam nga boo ko présenté noonu day doon wax bu mel ni ku xaw a cohérent waaye boo gasee tuuti en fait amul amul cohérence gis nga le premier problème bi ñu war a régler te wax nga ko sànq. ci question bi nga posé ni ñu ko posé dafa xaw a subtil. xam nga rationalisation des partis politiques mu ngi ci référendum bi. Mm -hmm. référendum bi ñu ngi ko adopté en mars 2016. ñu def élection législative en juillet 2017. un an et demi. lan moo tax un an et demi boobu on n'a pas organisé la rationalisation des partis politiques yi nga xam ne ci biir constitution bi la nekk. loolu mooy un donc ça veut dire que contexte bi ñuy indee parrainage dans le pour élection présidentielle ça n'a rien à voir bu doon dañ ko bëgg a rationaliser ca njaal benn ba lañ koy def parce que constitution bi moo leen ko mhm. imposé mhm. mu ngi mel ni may fàttali ci référendum mhm. boobu ci la ñu voté statut du chef de l'opposition ni président Macky Sall amee ay droit yoo xam ne ci constitution bi la ko jëlee noonu la opposition bi amee ay droit yoo xam ne ci constitution bi la ko jëlee boobu ba léegi deux ans président Macky Sall waxu ci donc amalgame boobu dama ko bëggoon régler dès le départ mula leer léegi parrainage bi li mu wax en fait du suñu suñu position ñun d'accord ñu parrainage wala boog dañu d'accord ne même bu ñu waree wax waxu parrainage bu ñu fàttani opposition bi dafa proposer woon dans le cadre de la rationalisation des candidatures bulletin unique ñoom ñu ne bulletin unique bi dafa laaj caytu bu bari pour pour bañ a def ay erreur te boo xoolee parenage moo gën a compliqué bulletin unique donc bu ñu mënee d'accord ne dañuy bàyyi ba ci kanam duñ ko appliquer élection bi pour bulletin unique war nañ mën a bàyyi ba ko def pour parrainage bi léegi ñun li ñu tey suñu xel dafa nekk ci ay trois ou 4 points yoo xam dama la koy développer rapidement bu njëkk bi bi ñu ñëwee nañu dañuy def référendum changer constitution mhm. xam nga changer constitution dafa am doole ci dëkk bi ci réew li ñuy wax fil rouge référendum boobu mooy li ñuy woowee les close d'éternité maanaam ñun sonn nañ ci suñu constitution ñu koy changer chaque mhm. jour mhm. dañ ciy def ay clauses yoo xam ne kalaat lu leer da koy mhm. tëj lu leer moo tax nga ko waat ko deux ans après nga ñëw di proposer révision constitutionnelle donc loolu déjà dafay teel xel benn élément la deuxième élément bi contrairement ay yenn argument yi may dégg mooy li ñuy wax ñoom naan bu ñu demandee candidat indépendant ay signature pour que candidat yëpp ñu yemale leen dañu war a demander le candidat du parti politique signature parrainage mm-hmm. Mm-hmm. bokkul c'est deux logiques yoo xam ne bokkul xam nga lu tax parce que le parti politique bañ koy créer Sénégal dafa am ay loi wax na ne pour am parti politique mm-hmm. da ngay remplir condition un condition deux condition trois enquête boobu ministère de l'intérieur moo koy def donc bu ñu xëyee ba jox la parti récépissé même bu dee mille ñoo fi am cest à yow am nga déjà sa légitimité ma terminer foofu boo liiree constitution bi mhm. bu ñuy wax pièces yi nga xam ne mhm. constitution bi ak code électoral mhm. pièces yi nga xam ne moom nga war a déposer pour nekk candidat daf ci am pièce boo xam ne xam nga lan la attestation de l'investiture loolu moo tax ngay gis les parti politique di organiser congrès d'investiture pour ne diw suñu candidat la loolu defuñu ko pour folklore mais dañ ko def parce bi voilà parce que dafa lay jox benn légalité nga xam ne papier boobu da nga koy jël nga def ko ci dossier candidature bi donc ki nga xam ne dañ ko reconnaître légalement à travers la constitution par thème def investiture attestation boobu mu déposé ko. doo ko yemale ak candidat doo ko koo xam ne représenté wul kenn candidat indépendant. d'accord merci beaucoup boo déggee ponk yi mu yëkkati dafa mel nii ci yoon bi ñu bëri njort muy jalgati élection yi ci ngeen tegu le ministre Ndongo Ndiaye ndax dara dafa gënt yanu maana ñu dëgmal ay élection daanaka juróom-ñeenti weer dox suñu diggante ak loolu ñu bëgg laal dara ci loo xam ni ci élection yi lay jëm te àndul ak ñëpp mën ci ànd ndax du jox dëgg. kaddu yi nga xam ni wax na ko ci parrainage boo xam ne am na lu ko laal. Pape Ngagne merci beaucoup euh, man fi may fi may intervenir mooy dañu war a xam ne aussi parenage bu ko tuddee tey ce n'est pas lu bees loo xam ne dañ ko inventé pour une circonstance actuelle. Mmh. c'est un problème boo xam ne dañ ko gis bu yàgg. Mm-hmm. problème boobu gisuñu ko sax ci régime bi rek. mu lay expliquer l'histoire même. de de de la problématique liée euh, aux élections maanaam. Mhm. élections yi dañu xooloon ne même ci régime bi fi passé gisoon na ni. Mhm. parti politique yi ni ñuy juddoo. ak élections yi ni nga xam ne na nañ koy war a gérer problème am na ci. Mhm. régime bi passé li ñu jëloon muy solution mooy ne nañuy yokk caution bi. parce que ñoom jàpp nañ ne xaalis moo war a nekk différenciation bi. ce qui ce qui à mon était un une grave erreur parce que ci démocratie sama diggante keneen ki xaalis wërta tax ñu tànn ko wala ñu bàyyi ko popularité maanaam nit ki li la nit ñi gëmee moo war a tax ñu tànn la wala ñu bàyyi la. mbaa programme bu baax. léegi wala programme bu baax. Mhm, mhm. mais nag le programme c' est c' est validé par les personnes. d' accord tamit ku am problème programme bu baax. ñëw nit ñi bëgguñu programme. Mhm, donc de bi ñu bi président Macky Sall ñëwee ci kii bi. ñu gis aussi le problème a, a persisté mhm. problème est resté intact ma jox la exemple en deux mille euh, élection locale deux mille deux mille quatorze mhm. il y avait mille sept cent listes différentes deux mille sept cent ah, listes dama lay wax rek xam nga mhm. fii moi je suis euh, moi je suis un, un, un mathématicien man chiffre laa gëm dama gëm ne du kenn du ma wax lu ma gëmul te ah chiffres yi na fi ah deux mille sept cent listes moo am en deux mille deux mille quatorze ñu ñëw élection Euh, législative deux mille seize. Mhm. ñu gis ne il y avait quarante sept listes différentes donc le problème est laissé là. Mhm. bi ñëwee nag ñu ne il faut que lii tamit bu ñu ñëwee ci élection présidentielle. Mhm. il faut que ñu trouver pro euh, solution bi. mais pas pas ngeen proposer. mais bañ a imposer mais dama lay wax rek. proposer mais bañ a imposer proposer da nga ma déglu rek. gis nga gis nga waxtaan ak ku ko nangu. gis nga fii le on a on a demandé à, on a appelé à une concertation nationale. woote nañ fii ku ñëwul ci yow la neex. amul kenn koo xam ne bedd nañ la. parti yi wuy si ñëpp wax nañ seen xalaat ci loolu. Mhm, mhm. te ci parrainage bii nga xam ne moo am tey. Mhm. parrainage du loo xam ne Sénégal dong la am. démocratie bu sérieuse boo gis ci àdduna. muy démocratie de référence. Mhm. parce que aucune démocratie n'est parfaite. Mhm. que ça soit la démocratie américaine française démocratie les grandes démocraties démocratie boo gis am na loo xam ne c'est c'est un système. lu cay ñuul la waaw. Mhm. mais terewul. démocratie yooyu am na ñoom démocratie bu amul filtrage amul. d'accord boo demee États-Unis tey. dañuy commencé filtrer ca primaire. noo kenn waxul li ngay li ngay wax ak li ñuy wax bokkul. kenn bañul filtrage ñoom ñëpp d' nañ ci. li ñu ko bëgg defee loolu la ñu d' accordul. waaw mais ñoom ñu ñëw d' abord. d' accord rek xam nga. Mhm. xam nga nit ki su fekkee ne yow dañu ne. da ngay xëccoo présidentiel. waaw yow mu wóor la ne ni 1 pour cent mënoo ko am. kon leneen nga bëgg Pape Cheikh li ki banaan la Pape Ngagne. Mhm. dafa am ñoo xam ne il faut que qu'on mhm. am na candidat yoo xam ne. bëgguñu nekk candidat pour nekk président xam nga lu ñu bëgg a nekk candidat pour. dañu a nekk am seen CV. candidat à la présidence c'est loolu boobu na loolu nag. d'accord ñu war koo fayloo peuple bi aussi. d'accord ça Bachir ay la yowin aussi ku dégg li nga xam ne noonu la ko ndongo waxee dëgg la parce que ci concertation yi amoon ngeen ci cër am ci place teewu leen ci est-ce que itam kon jaadu na ñu génn ci euh, ngeen am lu ngeen ci diingat wala dara ak lu mën a xew est-ce boobu seen présence d'abord. ci concertation bi. Euh, jërëjëf euh, <clears throat> Pape ngañ maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. waaw di nuyuwaat euh, sénégalais yi di kontaan bu baax ci déroulement débat bi. Mhm. tey dama boole am satisfaction dans un premier temps. Mhm. parce que question bu mel nii bu am solo comme parrainage nga xam ne dafa lëmbe réew mi. Mhm. mu nekk benn question boo xam ne dafa inquiéter la communauté internationale inquiéter la communauté nationale. képp koo xam ne. bëgg nga Sénégal patriote nga nekk juriste sa xam-xam màcc ci wàll wi génn nga ci sa xalaat wax ne Macky Sall lii nga bëgg def mu nekk de manière unilatérale danga ko war a teg gi parce que baaxul ci réew bi waaye nag lii du gulet forcing bii nga xam ne Macky Sall mi ngi ko bëgg def feeñ na d'abord ci bi ñu def acte 3 de la décentralisation gis ngeen mbir mi nam fa tëddee defuñu benn concertation de manière unilatérale ñu appliquer acte 3 de la décentralisation ñoom ñi nga xam ne dañu nekk ay maire te bokk APR wala bokk ci mouvance présidentielle bokk na ci ñu bari si ñooñu ñoo xam ne dénoncé nañ acte trois de la décentralisation ba ñu commencé di wax ay phase deux que dañ koy jéem a mhm. rectifier la def naan loolu li may wax ni Sénégal yëpp xam na d'accord mhm. nga dem ci wàllu négociation yi nga xam ne Macky Sall woote woon na ko ñun suñu parti bokkoo dañ ci le parti démocrate sénégalais Omar Sall moo ñu représenté woon ci palais ba mhm. et de bonne foi ba ñu fa demee parti démocratique sénégalais wane na patriotisme wane na engagement pour réew mi. wax xalaatam président de la république mu nekk loo xam ne amul langue de bois. Mhm. et maa ngi féliciter Omar Sarr à travers n'est-ce pas votre plateau. ci courage bi mu am. wax dëgg président sans pour autant même wax ko loo xam ne dafa jéggi. li alors ma ñëw ci parrainage bi. waaw ci concertation bi seen absence. voilà parce que loolu si question bu précise la. voilà nga ñëwaat encore ci mbiru parrainage bi euh, mu dajale. yenn parti politique yi nga xam dañu nekk ci opposition bi c'est pas mhm. l'opposition significative loolu tamit dama bëgg mu mu nekk loo xam ne lu leer la parce que bëri na ci ay parti politique yoo xam ne mësuñu bokk ci concertation yi donc bu ñu laax naan opposition bi dañu d'accord ci parrainage au contraire l'opposition c'est que parrainage bi nga xam ne Macky Sall moom la bëgg a teg c'est de la tricherie mhm. te lim ci jublu du lenn lu dul ay mbiru labat yoo xam ne Sénégal war na koo dépasser man tey waxuma uniquement ci parti démocrate sénégalais damay wax aussi tamit en tant que patriote parce que réew mi bu tàkkee ñun ñëpp la tàkkal réew mi bu baaxee ñun ñëpp la baaxal d'accord te Macky Sall li nga xam ne moom la jublu ci mbiru parrainage bi ñaar la ba ñett bi ci njëkk mooy nee nañu parenage bi da nga war a am pour cent ci fichier électoral bi. Bachir nag tontuwuloo ma quand même. ci laay ñëw très rapidement. ci ci laay ñëw seen absence aussi dafa am solo nit ñi xam pourquoi PDS ndemuñu ci concertation bi. ci laay ñëw parce que mbiru parrainage bi aussi foofu la jógee. xam nga loo gis ci àdduna rek. dafa am fil conducteur mais aussi problème de temps parce que am na lu may argumenté tey ki may déglu xëy na du xam. mais su ma génn ci historique bi dinañ comprendre ma ñëw rapidement léegi ci ci ci question bi. suñu absence ci concertation yi li ko wundu lenn rek la mhm. mooy démarche unilatérale bi nga xam ne Macky Sall la moom la jàpp ni moom la war a ériger en mode de comportement maanaam noonu la war a comporter wu Sénégalais yi mhm. jaay doole ak imposer li nga xam ne moom mooy loi am. Mhm. de manière unilatérale loolu la ñu wax ni du ñu bokk ci loolu parrainage bi. li mu ci jublu lenn la nee nañu ñoom 1 pour cent la ñuy demandé ci fichier électoral yi ci candidat bu ci nekk ci ay parrain maanaam 65000 vo euh, mille électeurs. loolu moom bu ngeen amee candidat du seen problème. maa ngi ñëw rek maa ngi ñëw xam nga loolu. parti démocratique sénégalais wax ah. dëgg yàlla ay la yéen ku dem ba am 20 députés xam nga ni loolu c'est pas une difficulté. mais lépp mhm. li ñuy teg ci yoon moom mooy. bëgguñu bàyyi Macky Sall gannaaw ba mu labacee carte gi. d'accord ci référendum bi. Mhm. Mhm. labaj ko ci législative yi ba nga xam ne Sénégal wërngal këpp xam nañu Macky Sall dafa jalgati élection yi ñu may ko mu identifier le potentiel électoral de l'opposition ak ñi nga xam ne ñi ngi jongante moom. tey kenn ku ci nekk bu joxee 1 pour cent 65000 voix 65000 électeurs Macky Sall dana xam ne ñii ak ñi potentiellement ñoo bëgg a voter opposition te nee nañu kundoo rey sa maam. boo gisee lu ñuul nga daw nga daw Touba. gis ngeen na mu demee ci élection législative yi. d'accord mais dañu xam ne foofu laay daanelee foofu laay daanelee sax dañu ah. xam ne. fii mhm. opposition bi am na fi doole. Mhm. ñu def tout pour jéem a empêcher vote bi. mu nekk dans la régularité merci beaucoup. article bi mooy terminé nag foofu da yaakaar naa ni euh, Mohamed suma xarit ak euh, nongo ñoom ay conseillers lañ ci président de la république. Mhm. su fekkee président dafa jalgati yoon article 103 ni ko docteur waxee tout à dafa am ay clause d'intangibilité. kii wax na ko tout à mu ne ko tuddee clause d'éternité maanaam loo xam ne buñ ko tënkee dafa war a bokk ci li stabiliser réew mi muy par exemple suñu modu état ñun état républicain la ñu am duñu mus a am monarchie muy mode de mode mode d'élection du président de la république article 103 en son alinéa 7 réglé na question boobu ñu ngi demander président de la république Macky Sall mu xam ne moom mi ngi jalgati election yi honoré wul Sénégalais yi. honoré démocratie yi. te tey jii képp koo xam ne yaa koy topp ci xam nga ne yaa ngi koy topp. voilà merci beaucoup. Euh, euh, Moustapha Diagne euh, parrainage bi lii tax ñu ragal ko ndax du dañu jàpp ni lu candidat yi gën a bëri chance su président Macky Sall gën a néew ndax tey bu ñu amoon trente candidats mbaa vingt candidats à la kulli xaal faaw mu dem deuxième tour. non mën na caa génn wala du ca génn mais lu kat hmm. bokkul ak élection législative parrainage bi arrangé na ko peut-être foofu hmm. mais ku ne xam na ni ndax jàppuloo ni loolu moo tax ngeen nànk ci ne faw ñu dem ci parrainage boobu mais non mais non je, je ne crois pas mais même rek ma mu leeral quelques points ba ma ñëw foofu xam nga kii Bachir wax na ko euh, clause euh, d'éternité bi euh, c'est la nature caractère républicain laïque bu bu état bu Sénégal mu benn dafa laal aussi durée mandat bi ndax moo fi indi woon coow bi ak mandat bi mais jàpp ma ni candidature yi yooyu euh, constitution di ko régler code électoral moo koy régler mm-hmm. encore une fois bon euh, docteur aussi wax na fii affaire chef de l'opposition bi ñu ko fi yëkkatoo yëkkatee Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade bi nga xamante ne bii moom en principe moo war a nekk chef de l'opposition li mu tontu mooy ça ne m'intéresse pas ñëpp fekkee ko alors wax na aussi euh, ku ñu jox sa parti ji nga ministère de l'intérieur mm-hmm. bu appliqué woon loi parti bi tas nañ leen. parce que parti bu nekk waaw maa ngi ñëw parti. lan moo ko teree appliqué waaw maa ngi ñëw man j'ai man publiquement j'ai mm-hmm. euh, parti bu fekkente ni laa jox récépissé dafa am cahier de charge war nga def rapport d'activité. rapport financier di ko di ko di ko déposer mhm. annuellement au niveau du ministère de l'intérieur ça mhm. bu ko appliqué woon rek parti yëpp tas na ko moo gën a gaaw kon mënu ñoo wax ni ñun dañu fi nekk pour pour di tas parti ak yooyu alors vraiment euh, li may euh, wax nag maintenant ci ci sa question ragal la dem deuxième tour te xam na ni candidature multiple yi mën na ko fa yóbbu déjà ñun bi ñuy créé commencé basi bu ñu commencé gagné élection opposition lañ nekkoon mhm. nekkuñu woon pouvoir kon mun ñu jalgati mun élection bu ñoo jalgati ko euh, mun ñu nekk aussi perte nañu fi capital fii capital Dakar mhm. maire bi fu nekk daf ñu daf ñuy opposé suñu mënoon a jalgati élection kay on commence par la capitale dafa am wax yoo xam ne di ko wax vraiment pour man Bachir yenuwul yenuwul maanaa ensuite bien non man euh, kii logique bi nga nekk peut-être contraire bi sax laay wax ah bon oui oui oui oui ok parce que opposition bi li ñu gën a émietté wu rek voix yi gën a tas li nga bu njëkk bu njëkk si da nga daan gis ay parti au pouvoir yu créer ay candidatures pour multiplier les candidatures de l'opposition grignoter seen seen seen i je pense que loolu euh, donc du du du. du logique bi. maintenant même rek moo yeggalee. Mhm. kii mhm. Mhm. pour élection yi di ñëw. ñun suñu diggante ak deuxième bi en au législative c'est plus de deux millions de voix. je pense que c'est c'est des faits qui sont parlants encore que même ci législative yi passé

te président lañ bokk c'est-à-dire y' a beaucoup de listes yoo xamante ne bii c' est pas des listes de l' opposition dañ ko parrainé c' pas parrainé ah d' accord c' est gens qui ont pris le responsabilité d' merci beaucoup alors docteur uh-huh. euh, dafa bëri lu ngeen di ragal yéen euh, opposition bi ci parrainage man dama déglu le ministre de la justice uh-huh. ci grand jury ak Mamadou Ibra Kane uh-huh. vraiment mu wax lu dal xel bu kenn ragal par exemple dem def sa def say signature yaakaar ni dina am doublon. Mhm. di dinañu ko dinañu saytu ba. bu fekkente ni am na doublon ñu jox la ay délai nga dem rectifier ko recours mën na am. Mhm. yi ñu doon tiit yëpp réglé nañu ko. Mhm. mais bu fekkente ni loolu réglé na. est-ce que war ngeen amati leneen loo xam ne lu ñuy lu ñuy ragal ci filtre candidature yi la nag vraiment. ok jërëjëf euh, xam nga dañ nekk ci gouvernement boo xam ne mënatuñ ñu wax lu dal suñu xel. puisque seen chef ñoom ñëpp le président de la république. Mm-hmm. moo wax 17 fois dans 7 pays différent que ne mandat 5 ans lay def du def mandat 7 ans mu xëy génn ci ba set wecc. ñun mm-hmm. li nga xam ne yenn ministre moom la ñu wax mënuñu rassurer. loolu lay commencé dama bëggoon ñëw tuuti ci monsieur le ministre conseiller wax tout xam nga débat bi il faut pas ñu def ay amalgame nga baal ma ci moo bi parce vous avez les mathématiques chiffres yi nga wax yëpp élection législative la loolu mooy amalgame bi débat bi c'est pas ay rationalisation parti politique élection législative on parle de l'élection présidentielle te puisque da nga bëgg ay chiffres on en parle nañ jéem a def tuuti historique élection présidentielle au Sénégal gis nga bi ñu jógee élection 83 dem 88 dañ jógee de cinq candidats à 4 candidats mooy c'était la première fois tendance ñëpp xalaat ne nombre de candidats dafay yokk mu wàññeeku mm-hmm. mais bi gën a marquant tenez élection 2007 la caution était à vingt cinq millions on avait quinze candidats élection 2012 la caution était à soixante cinq millions on avait quatorze candidats donc bu dee da nga def statistique évolution on est dans une tendance baissière parce que élection 2007 moo ëpp candidat élection 2012 donc le fait que ñëpp di wax naan puisqu'on a 300 partis politiques nombre de candidats yi dafay yokk fantasme la mm-hmm. c'est pas basé sur l'évolution des candidatures au Sénégal. Mhm. tey mën nañu dem élection présidentielle nga am quatre candidats cinq candidats même boo deful parrainage donc amalgame boobu il faut ñu éviter ko il faut pas aller ci li xew élection législative yi pour expliquer parrainage li am li xew ci élection présidentielle. Mhm. beneen aspect bi nga xam ne moo gën a graaw encore une fois li ministre bi wax le ministre Ismaïla Madior Fall c'est mon grand frère. Mhm. mais li mu wax wax dëgg yàlla rassuré wu ma gis nga recours yooyu ñuy wax ñun on a fait un conseil constitutionnel déjà mhm. il faut parler du volume c'est-à-dire que 65 000 signatures est-ce que xam ngeen nan la c'est-à-dire 65 000 signatures c'est-à-dire que presque livre la pour candidat bu nekk tu vas amener presque un livre de 100 pages muy sa ay signature signature lan moo tax mu am doole signature pour mu am doole dañ koy authentifier maanaam nga ne signature bi signature Pape nga Ndiaye la bokkul ak signature Abdourahmane Diouf mhm. yow banque ba nga xam ne da fa am sa compte dafa signé tout le temps des fois sax mhm. que xalaat mhm. nañu li nga signé wax création d'une autorité mais autorité xaw ma nu ñu koy créer bi dafa wax ni c'est le conseil constitutionnel moom mooy arrêter la liste des candidatures def yi d'accord léegi imagine nga indi quinze candidats ku nekk indi la livre cent pages. d'accord léegi ils ont un mois pour xool signature bu nekk authentifié ko. d'accord léegi bu ñu paree. baax ci leneen lu mu wax mooy mën nañu génn ci ci un pour cent bi. wàcc uh-huh. ba ci ay zéro virgule zéro. donc loolu yëpp lu ñuy discuter la bu boobaa non non. xam nga boobu aussi dina faciliter euh, comptage bi nga xam ne dañ koy def. rassuré ok d'accord parce que lépp ci intention bi la nekk ma ñëw ci recours bi c'est important. Mm-hmm. exemple Youssou Ndour. Mm-hmm. Keba Kayndé. Mm-hmm. docteur Abdourahmane Sarr ba ñu leen fi jëlee. amuñu woon recours bu ministre bi ñëwee ne dafa am recours parce que là li ñuy wax computation des délais ci droit dafa am solo conseil constitutionnel bi 35 jours avant le premier tour lay déclarer liste bi on est le 20 janvier élection bi nekk le 24 février cinq semaines ci 5 semaines boobu booy def rétroplanning di nga dindi 3 semaines de campagne électorale mu des 2 semaines 5 candidats bu ñu defee recours sur 65000 signatures à authentifier fois 5. ils n'ont pas le temps matériel pour exercer le recours donc loolu techniquement c'est du saupoudrage possibilité de recours bi mënul nekk en réalité bu ñuy ñëwaat ci loolu mhm. la seule motivation du président de la République actuellement ak gouvernement am c'est d'organiser la pénurie des candidatures dañ ciy ñëwaat duñ ci suux mais mën nañ ci ñëwaat Karim Wade ak ni ñu organiser CREI bi du début à la fin on a mis la justice au service pour éliminer sa xalifa Sall dañu jël justice utiliser ko de façon politique pour éliminer sa candidature article 57 bi defoon naa ne Bachir dina ko tudd dañu ne malgré loolu ñu def yëpp bu dee am nañ doute benn doute que ne Karim wàdd wala xalifa Sall mën nañ bo nekk candidature article 57 bi lañ leen di faagaagale parce que fa ñu waxoon ni tout Sénégalais peut présenter sa candidature dañuy wax maintenant tout électeur mhm. donc yooyu yëpp boo ko boolee ñoom dañu nekk di wut non une victoire électorale boo xam ne peuple moo la koy jox carte moo la koy jox mais ils veulent avoir une victoire technique comme ni ñu ko amee ci élection législative yi xam nga mooy victoire technique mooy comme ni ñu def élection législative c'est-à-dire ku war a wote Touba doo wote primo votant yi du ñu jot seen carte nga organiser parrainage donc da ngay teg ay obstacles techniques yoo xam ne bu ñu paree effectivement saa ci élection mais doo ñëw nga dëpp urne yi comme ni ñu ko daan defee ñun temps yi ñu nekkee xale da ngay ba nga xam ne mën nga am une majorité loolu mooy jalgati ko quoi. technique c' une victoire technique man loolu laa élection législative yi techniquement lañ gagné parce que ñi leen contre war a voté voté wuñu donc boo amee cent yu la war a votel yow cent yëpp voté man ma am deux cent yu ma war a votel cinquante voté mënuñu wax ne da nga sàcc mais gagné nga donc loolu dañ ciy attirer attention. d'accord. opposition bi yëpp pour ñu mobiliser voilà mën a régler problème mu parrainage le, le ministre mhm. euh, mu am en tant que opposant est-ce que ce ce devoir la tant que mouvance présidentielle war organiser élection ndax jàppaloo ni comme ni ma koy waxee souvent war ngeen jox ay garantie yu nit ñi mën a teg ñu dem ci ay yu baax parce que techniquement ni mu ko joxe exemple bi parrainage bi ci la nekk ak yeneen jafe-jafe yi nga xam ne mën na ci am mhm. ndax loolu yëpp nekkul lu ñu war a mën a régler mu féete boor euh, Pape Ngagne ñii seen mbir kenn mënu ko régler pour deux raisons mhm. la première raison mooy il y a une partie de l'opposition mmh. a pris pour comme option que indi fi rapport de force rendre le Sénégal ingouvernable pendant en certain temps dama lay déglu rek dama déglu rek la la dama lay déglu kay directement fa mhm. laa lay jëmale ok la deuxième chose la deuxième raison mooy ne ils veulent aussi amener une distraction et distraction politicienne je suis désolé ku mel ni docteur Abdou Biram ndax docteur Diouf di ci bokk parce que c'est un gars boo xam ne vraiment warul bokk ci yooyu distraction boo xam ne élection xam nga lan la ñii Macky Sall jërul muy inventé benn formule dóor na leen 2012 dóor leen 2014 dóor leen 2016 dóor leen dóoraat leen dóorati leen te di leen nar a dóoraat il faut que ñu créer ay distraction distraction bi pour ba a indi le vrai débat. yéen ngeen di créer ay soustraction. non non ñun amul soustraction xam nga le vrai débat xam nga le vrai débat mooy lan <laughs> c'est le débat qui respecte le Sénégalais le débat qui concerne le Sénégal xam nga le Sénégalais yi ñuy jàkkaarloog ñun nekkuñu ci sax d'histoire parrainage xam nga lu ñu fii mhm. fan lan nu fekkoon fan lan war a jëm. Euh. est-ce que ci électricité développé wu nañ. est-ce que sunu njàng mi avancé na. est-ce que enseignement supérieur y a des développements. est-ce que est-ce que est-ce que yow bu ñu la ci laajoon looy tontu ji. est-ce que est-ce que ci boobu dinañ ci ñëw ci loolu. c'est un débat que ci ñëw. xam ne dinañ ci dinañ loolu sax dinañ xam ne xam nga Ismaël li ñu ne du ñu ñëw ñu bëgguñu dara. kaay leen wax seen proposition vous voulez pas le parrainage vous voulez pas le 1 pour cent venez et dites ce que vous voulez ils ne veulent même pas bëgguñu ne sax bëgguñu sax ñëw wax mooy lan ñu dañu bëggul bëre parce que xam nga lu nañ ne suuf la ñuy féetee. Mm-hmm. Macky moo leen mën moo leen ëpp ay nit ndax dañ fi nekk di wax ñoom même sur le plan politique sax li Macky Sall def la ñuy répété. ils sont candidats ils essaient de d'imiter Macky Sall te xamul ne c'est pas c'est pas c'est pas la même chose wër nii bi nii du wër du wër wëru caaxaan wër dafa metti te loolu bokkul ak ni ko ni ko Idrissa Seck di wëree <coughs> donc. ñii Macky daf leen raw lu bëri ñu foog ne nag ci làmmiñ ci lañ koy dabee. d'accord te affaire bi du loolu gis nga affaire bi bilan la te le bilan de du président Macky Sall est tellement élogieux que. d'accord buñ ca demee. du leen am du bëri du am. d'accord loolu moo tax bëgguñu bëri am. Bachir. Euh, man li may li ma laaj docteur rek laa lay laaj parce que parrainage bi indi coow li dégg naa ministre bi mu dalal xel yi wax dëgg yàlla ne lu ngeen ciy ragal ñëw leen ñu waxtaane ko euh, bu dee 1 pour cent la mën nañu dem ba ci 0 virgule 0 nangam nangam pour cent loolu tam lu war a lu ñu mën a dégg la yi mu ne recours yaa ngi fi donc lan moo war a indiwaat nag coow fii mu nekk nii. lu dul nag li li saa wax est-ce que du ngeen du dangeen ngeen a ragal a sëgg bëre wala lu xew. noo xam nga pam nga Ndiaye man bu may déglu euh, nongo mhm. franchement j'ai l'impression que dafa nekk ci beneen réew bu dul Sénégal parce que ndongo suñ sañee taxaw fi jamono ji toll nii fi Sénégal toll ak Macky Sall recul démocratique yi nga xam ne def na ko ci réew mi. ak ni mu suuxalee suñu économie boo taxawee tey ji di yaakaar réélection yaakaar naan da ngay gént. waxuma ko parce que dama la bëgg a mais loolu dund nga ko maa ngi koy dund parce que bu ñu duggee ci front social bi. dugg ci situation économique bi situation endettement bi ak réew mi li nga xam ne moom la ñu dundee jafe yi ci nekk yaakaar naa ne Macky Sall amul chance sax nekk troisième bay dem deuxième tour ça c'est une question beneen bi mooy. Abdourahmane wax na ko sànq maa ngi bëgg abor aborder question boobu xëy na euh, sama sama sama temps mhm, moo jeexoon mhm, mhm. mais li gën a tax tey jii loi yi judd lu ci bari Karim Wade moom moo tax Karim Wade mooy ki nga xam ne moom moo tere nelaw Macky Sall c'est ça la vérité complot politique judiciaire bi nga xam ne teg nañ ko Karim ñu wax ci ba sonn adduna wërngal këpp taxaw ne lii ñu teg Karim du yoon banque mondiale teg rapport boo xam ne dafa innocenté Karim Macky Sall nëbbu ko dem au niveau de la cour d'appel de Paris laataa loolu tribunal grande instance ñu dóor leen foofu groupe de travail des Nations Unies ñëw wax ne Karim liñ ko jàppee teguñu ko si yoon non seulement dañ ko war a bàyyi ndàmp ko CEDEAO ànd ak Karim adduna yëpp ànd ak Karim tey jii Macky Sall amatul fenn fu muy jaar benn disposition bu sew la dugal te ki nga xam ne moo ko ciy jàppale mooy ki nga xam ne moom la ñuy tuddee malheureusement justice juriste tailleur muy kan Ismaïla Madior Fall c'est très xam nga dictateur boo gis dana am kii nga xam ne mooy nekk ci wetam di ko xelal mais en général bu demee ba nga xam ne dictateur bi daanu na dangay gis ñi nga xam ne ñoo doon taxaw di ko défendre ñoom ñëpp dañuy écarté wu. article 57 boobu li mu wax mooy boo nekkul électeur doo mun a nekk éligible. tout kooku kan lay mm-hmm. viser Karim Wade Khalifa Sall. maa ngi leeral askanu Sénégal fii mu leer nañ Mohamed Ndongo c'est pas des déclarations de guerre. 2011 mm-hmm. Macky Sall taxaw na fi. ne Ablaye Wade dafa bëgg a jalgati élection yi patati patata dafa bëgg a jalgati suñu démocratie ñu ngi dem directement vers l'affrontement te bu ñu demee ci affrontement na armée bi jóg lépp fete ci wetu armée ñun tey jii ñun ñooy demande mhm. à ce que l'armée soit républicaine parce mhm. que su fekkente ne Macky Sall mi ngi persister dans cette dynamique mhm. maanaam mi ngi bëgg a def forcing pour jàllale loi parrainage bi nga xam ne mi ngi ko bëgg a def wala mu bëgg a jàllale article 57 bu euh, code électoral bii nga xam ne mi ngi ko modifié pour dugal ci de conditions yoo xam ne dina rendre inéligible ku mel ni Khalifa Sall wala Karim Wade. Mhm. su boobaa. Mhm. naturellement le peuple dana taxaw jaamaarloo ak moom. Mhm. et de ce dañuy demander à ce que l'armée nationale reste républicaine. d'accord parce que nag tey wax dafa jot Pam li tax wax jot mooy ñun Sénégal la ñu am mënuñu génn Sénégal. Macky Sall xam na ni la nga xam ne moom la diggoon Sénégalais yi de fond en comble defu ci dara. tey bu fekkente ne Macky Sall mu ngi fëgg dënnam nongo wax na ko tout à liggéey naa sangam def naa sangam maa réalisé alors que yow réaliser woon dara parce que boo réalisé woon dara ba mu nekk loo xam ne lu wér la doo ragal di jongante ak ay nit mais su fekkente ne yaa ngi ragal jongante ay nit c'est parce que tout simplement c'est bilan moo négatif mhm. boo jëlee benn question bu ndaw tey ana suñu étudiants yi nga xam ne dañ leen a orienté tout ci yeneen école privée supérieure c'est dinaa ci ñëw ñaata lañ leen amel <coughs> tey ci mbedd dinaa ci baykat en prie Bachir fayu leen seen en prie c'est ah, euh, foofu mu daaneele foofu la ñuy taxaw muy yëngu-yëngu bi nga xam ni front social bi yàgg ci fàttaliku fii mu toll gëjoon na fi toll mm-hmm. dem ba fi mu ne jege nañu année blanche ay la yéwén nag bu ñu demee ba ministre bi di xalaat ni nañu yokk euh, année bi mm-hmm. pour que ñu m a fi mu ne jaaxle nañu xamuñu fan la ñu jëm nga gis aussi li nga xam ne moom moo am ci sante bi mu doon lu yéeme nga gis u expliqué na quoi ah. monde rural bi moom moo gën a catastrophique ñi nga xam ni ñoo bay seen gerte ba léegi gerte gi mi ngi seen loxo léegi ñu demaat ci tool yi pour ruuj loolu itam lu doy waar a ngi noonu donc foofu ñu toll tey ci ci front social ndax yaakaar na ànd na ak euh, xel mu dal ci élection yu ngeen jàpp ni mën ngeen ko gàddu ëllëg waaw xam nga euh, Bachir il très inspiré parce que réew moo xam ni Pape ci nga enseignants yi depuis deux mois ñu ngi ci ay plan d'action def ay marche amul benn enseignant bu nekk prison nga ni réew moom dafa am dictature wala prison yi doo fa gis kenn koo xamante ni bii benn Sénégal boo xam dañ ko jàpp pour offense euh, donc au chef de l'État réew moo xam ne <coughs> bàyyi ma ñëw non Barthélemy Diaz li mu wax magistrat yi la ko wax non mais Barthélemy Diaz waaw s'il vous plaît s'il rek Pape mm-hmm. boo ma waxee am dag may <laughs> déconcentré ah non il faut ma waaw xam nga réew moo xamante ne bi li mm-hmm. woote nañ fi six fois chaque chaque chaque année ñu convoqué électeurs yi nga ñu démocratie foofu am nañu presque téeméer rajo rajo yi langue yëpp la ñuy wax euh, information ci langue yëpp la koy jote am nañu lu ëpp fukki tele mm-hmm. télé yi dafa xanaa ñaar la ci état bi moom sa émission bi boo koy def doo tàgg Macky Sall doo tàgg état bi même doo tàgg sax xëy na patron bi nekk fii ma ñëw rek ma ah ñëw kon waaw consolider ah la ko xam nga réew moom boo nee xam nga démocratie dafa am baromètre waaw mais d'accord waaye waaye nag yàq ko am baromètre buñ koy buñ koy nattee léegi ma ñëw mhm. un peu ci ci Karim Karim euh, Idriss Seck moo ne Karim Wade moom jarul sax yóbbu tribunal fu ko leen ko fekk rek jàppale ci kaso bi waxu la lool de ma ma waaw may ma rek ma ñëw kii bassi dama laa déglu ba nga yeggal <laughs> xam nga Karim xam naa sa waay la Karim daf ñoo jaay eh, ay cocotier deux millions par cocotier cocotier yëpp dee na ndax nee na dafa bëgg Sénégal ñu rek Dubaay xuma luyee nañu fi bateau neuf milliards pour une semaine immeuble bi Tamaro bi mu koy bi mu koy bi mu koy euh, rénover sept ma ñëw rek ma ñëw rek non non dafa war a leer pa boo xam yow de askan la xam nga tax wax loolu nga tax ni yëpp condamné nañu ko ci waaw maa ngi ñëw 700 millions waaw ku mel noonu waaw la ko jël maanaam bàyyi bu d'accord su bàyyi nekkul woon président du nekk Sénégal donc ragaloo leen ko non waxuma sa ragal ay ragal de waaw waaw lan ngay wax milliards na ko fay nga bëgg ñëw ni dafa ndànk rek kaso ba am na ñoo xam ne cent mille francs moo leen fa bàyyi parce que fii doomu Abdoulaye Wade nga. non dañ ko ko amande mais amelu leen ko. dañ ko ko amande. non pas amande non daf ñu ko amel. non amande la. daf ñu non après condamnation. dañ ko amande Karim Karim bu ñu boo nekkee ci li mu def ci ay compte offshore ak ay entreprise offshore saa waay kenn kenn mënu ko estimer. Mhm. ce gars-là il a fait du mal au au Sénégal au Sénégal. ma ñëw rek ma ñëw non dinaa yeggale. waaw dinaa yeggale kii docteur c'est-à-dire que vérification. nekkul ay cinq cinq personnes yu toog di lire ay liste déedéet nous sommes à l'ère du numérique il faut mettre en place des équipes ñooñu ñooy vérifier affaire yi c'est pas les cinq sax qui vont qui vont qui vont compter quand même yow tamit loolu xel xalaatu ko sax comment cinq personnes peuvent vérifier non non dañuy peut-être ils sont là rek pour valider. Mhm. alors donc euh, beneen bi. Euh, vraiment affaire mais c'est vrai.

Euh, ba mu bëggee. mais nag gis nga boo bëggee li ñu wax yëpp. s'il plaît non non parce que ñoom bu ñu defee. kenn ku nekk noonu mais xam nga assemblée yi waxal dañuy jeexal seen xel. président daal non foofu dama ci wax benn. mais dama la ñaan aussi vraiment boo ko defee noonu rek du ñu am. débat waaw ma ma terminé fii rek. waaw terminé foofu quoi président de la république bi. Mhm. moomul mandat bi man ba mu waxee ne cinq ans lay def man damaa lànk parce que kenn moom ndax parce que. kon dañu fi xëy rek président yokk mandat. ok d' accord donc loolu. waaw donc mënu ko war a wàññi parce que moomu ko. ok mu leer. Euh, front social bi. fi mu egg man moo ma jaaxal. waaw mais xam nga Pape yow. xam nga fenn seddul ah. <laughs> Pape euh, gis nga front sociale bi c'est normal année pré-électorale la ñu nekk. bon waaw xam nga syndicalistes yu bëri ils se disent que c'est c'est c'est maintenant ou jamais. mais mais mais defal nag rek engagement la aussi bu ñu ñëwee ba ci année scolaire bi année électorale bi plutôt dañ ko war respecté par force xam nga engagement yi état bi jëloon en tout cas ci li ma xam. waaw ci wàllu njàngale mi. ñu nag ñoom fanweeri pañ la woon ak ñett. ñu song ci fan euh, ñaar fukki poñ ak juróom-ñett léegi mat na juróom-ñeent parce que liñ mës a song song nañ ko muy euh, indemnité de logement te 25000 francs yi leen président proposé mës a am. Mhm. ñun fay si système bi lañ bokk. Mhm. am na ay jamono 88 89 jëm kaw par 5000 francs lañ daan proposé. Mhm. Abdoulaye a dañoo proposé 10 mille 10 mille muy 20 000 président Macky Sall dem na ba vingt 25 000. ci réew moo xam ne nag. Euh, yaa ko wax sànq. Mm-hmm. Ah, croissance bi nag ñu ngi sept. waaw sept virgule na mën a yokk. waaw waay moo tax ñu a làmb mais à côté li ngeen xamul. Ah. problème mu yi. Ah. ma wax la ko tey. du indemnité logement. lan la kon. problème enseignant yu ci ëpp c'est des questions de carrière. loolu mooy lan. question de carrière. Mm-hmm. maanaam da ngay nekk jàngalekat bëgg avancé avancer. nga nekk contractuel bëgg a nekk fonctionnaire. Mm-hmm. ñu inspecté la. nga nga bëgg a nekk euh, inspecteur euh, jox la sa diplôme nga bëgg sa salaire yokk boo bëggee boo nga dem mise en solde li ñuy wax mise en solde boo nekkee contractile di fayeeku euh, nangam. Mhm. bu la mettre en solde. dafay ëpp d'accord question yooyu. Mhm. moo li nga xamante loolu. Mhm. président de la république lu bari la ci def. d'accord lu bari la ci def. loolu mooy loolu mooy ren loolu mooy loolu aussi mooy problème mu santé bi. mooy problème mu monde rural bi. ren que rien que pour loolu. waaw c'est fanweeri milliards ak ñaar la dugal jël dugal ci. d'accord. te jàngalekat yi may wax yi may déglu xam nañu seen problème dëgg-dëgg c'est des questions de carrière c'est pas l'unité de logement. d'accord naa ci wàllu euh, santé bi. waaw mais du du xam naa foofu ngay daaneel. waaw foofu laay daaneel ci ci ci wàllu santé bi aussi c'est des c'est des questions statutaires qui qui reviennent. Mm-hmm. donc ñi ngi continuer waxtaan. Mm-hmm. nañ naan ñëpp ñu continuer waxtaan. te nag ku dee bàyyi xel ni. Mm-hmm. bàyyi xel ni réew mi mu nekk lu bëri ñu ko bëgg koo teg aussi attanu ko. te it waxtaan li koy yàq. mooy. digaloo euh, mënul dafa non digaloo mënul. waaw ak laaj bu ko nekk. d' accord voilà dige digaloo mënul surtout. d' accord docteur euh, social bi yëngatu na. Euh, man damay wax ni sax ci pàttaliku xëy na est-ce que mën nañu mës nañu dund lu méttee ni xëy na peut-être ci jamono ñoom ñoom Bachir jamono électricité bi ak yooyu metti woon na. ba nga xam ni itam loolu beneen beneen affaire la woon ban gis-gis nga am ci fi ñu toll nii. ak lan nga yaakaar ni moo ko indi. jërëjëf deux remarques préliminaires rek bu njëkk bi. Euh, Macky gagné na cinq six élections bon ok PS moo gagné quatre soixante dix huit moo gagné quatre vingt trois moo gagné quatre vingt huit moo gagné quatre vingt treize waaye deux mille daanu na donc ñun am nañ yaakaar ci côté boobu c'est pas parce que da nga gagné ñaar wala ñetti élection que yaay continuer gagner élection les contextes changent très très vite et on est en train de s'en rendre compte dinañ ñëwaat man j'aurais bien aimé Euh, monsieur Diagne aussi mu wax ma ay signatures yoo xam ne ce sont des signatures physiques physiques de parrainage ban contrôle électronique lañ koy def pour une administration boo xam ne tu as dépensé cinquante deux milliards pour ay carte d'identité biométrique ñi ñu jotuñu seen ay carte d'identité donc tu échoues sur des considérations technologiques yoo xam ne dafa yomb mhm. donc ñun mënuñu rassurer ci côté boobu <coughs> donc man vision boobu ma am ci parrainage bi moom laa continuer di ci am pour man Macky Sall bu dee sage na da koy retirer alors pour ñëw ci front sociale bi damay dëggal sànq lii ñu wax yaa ngi wax effectivement ne bouillonnement social am na fii ñu toll nii 2018 toll woon nañ fa effectivement 2011 li muy wax nii dama koy renforcer parce que il faut ñu indiwaat mémoire sénégalais yi page officielle u président Macky Sall imprimé naa ko mu ngi sama saak ba ñu tolloo ci lu wax toll nii il a fait appel à l'armée et Bachir il est très républicain moo tax mu wax rek armée républicaine mais ba ko président Macky Sall di wax ci li nekk ci page Facebook am daf ne dafay woo armée bi pour mu ñëw jël ses responsabilités près de l'opposition et des population mhm. waxul sax armée républicaine mu yokk ci ci beneen poste ni actuellement le combat de rue dañ koy def ñun tollooguñu foofu donc tey Barthélémy Dias parce que Barthélémy Dias dañu wax waxu magistrat yi wax appel à l'insurrection bu doon président ba fa nekkoon à l'époque Abdoulaye Wade comme ni président Macky Sall di réfléchir noonu lay réfléchir Macky Sall du dem élection présidentielle 2012 parce que dinañ ko jàpp pour appel à l'instruction à à l'insurrection donc ça ce sont des éléments d'histoire yoo xam na ñun dañ ko fekkee mhm. il faut pas ñu divertir ñu ci mhm. front social bi dina metti parce que xam nga damay woowee ce que j'appelle les deux années indues du mandat mhm. parce que moom d'accordul woon mais ñu bëri deuxième tour lu tax ñu wóolu Macky Sall parce que dafa taxaw ne cinq ans lay def loolu peut-être amuñu instrument yu ko mesurer mais bari na ñoo xam ne dañu ko jàppale parce que nee na cinq ans lay def xam nga bu cinq ans yooyu jeexee nga ne loolu nga ko mayoon peut-être mën nga ci nekk di muñ parce que nee nga bés bu jeexalee ayam jeex mu dem keneen ñëw mais la mu ci teg lijjanti ba teg ko ci te mayu la ko muñ bi dafay gën a jafe loolu c'est un élément nit ñi dañu xàddi ensuite ma defal leen seen bilan rapidement PRACAS PMU bon yokk nañ ci DER léegi on a mis le terme rapide cest à on attend la fin du mandat pour mettre le terme rapide ak seen yeneen projet yooyu c'est-à-dire benn genre shopping list la boo xam ne dañ koy liste listé après bon mu nekk seen programme mhm. mais <laughs> le, le, le bilan concret mooy li Sénégalais yi di dund te ma tëjji parenthèse. mais am na ci lu positif quand même ci bilan bi mhm. dina am toujours lu positif. Mhm. positif. yi surtout ci intention yi la mais il faut tam ma wax monsieur que ne tooguñu nag fii nag tey parce que fii def naa fi débat 2011. Mhm. def bilan président Ablaye Wade ñu sanctionné président Ablaye Wade mu nekk républicain dem. du ñu toogaat six ans ñuy def bilan Ablaye Wade. Mhm. tey c' est le bilan du président Macky Sall. tout à laa leen di wax loolu dama koy répéter toujours. tout à fait ñoom dañuy am toujours un discours. Mhm. de début de mandat. boo leen déggee ñuy wax altine dangay ngay def ne dimanche lañ leen fal altine ñuy def ñuy wax alors que yéen mandat jeex na nañ ñuy wax li ñu fi def ñu discuter ci. maintenant bouillonnement social bi. xam nga pour nga nekk di def liste yi dox yi dox yi doxul day bëri da nga doon xool ci liste yi dox mhm. te yi dox moo bariwul nañ jël éducation bi mhm. dama doon waxtaan sama benn grand bu am humeur bu mën a waxtaan nii mu ne ma Abdourahmane xanaa Idrissa la <laughs> non sama beneen grand la bu dëkk ah, Tëngéej enseignant la ok mu ne ma gis nga boo taxawoon ci boppu koñ bii ma ne ko waaw mu ne ma enseignant bu la romb rek moo xam góor la jigéen la veste la sol wala xaftaan enseignant bu la romb rek Macky Sall amel na ko xaalis noonu la ma ko waxee mu ne ma enseignant bu la romb rek Macky Sall amel na ko xaalis léegi mën na nekk sur des problème de carrière mais problème de carrière yi li ko indi c'est des lenteurs man xam naa ay enseignants yoo xam ne bañ leen waree régulariser léegi mat na 4 ans 5 ans 6 ans te loolu responsabilité administration bi la beneen bi mooy problème mu enseignement bi coow lii yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp mhm. mooy dañu leen def ay promesses yoo xam ne teniru leen mhm. am na tam beneen enseignant bu ne ma mais nan nga mën a comprendre yow ñu def la ay dig respecté wuñu ko ngay grève ñu ñëw di la dikk pour nga bàyyi grève ba ngay grève dañuy wax ne bor du am rakk waaye aussi dige mënul am rakk d'accord fa may terminer <clears throat> mhm. mooy suñu gouvernement yi lu ñuy wax parce que loolu c'est un élément philosophique mais très important mhm. sénégalais yi dañu dem ba li ministre bi di wax ak li président bi di wax ak li premier ministre bi di wax tout le temps dañuy toogaat di ko xool premier ministre bi def na fi déclaration de politique générale mhm. jël parole def ngandum déclaration ci gerte gi ne léegi taxe à l'exportation yi nan lañ ko war a doxalee parce que bu ñu ko dindee dañuy subventionné ak mais vraiment un argumentaire technique boo xam ne man en tant que opposant fa ma toogoon jour boobu dama kontaan mhm. ma ne nag ku bëgg sa réew nii nga koy présenter parce que doo jël xaalis Sénégal di ko def ci ay subvention yoo xam ne ñeneen ñoo koy profité mhm. mhm. benn semaine lañ ci teg ñaari semaine ñu dindi ko ci loo xam ne politique structurelle lay doon bu war a protéger benn secteur comme le secteur de l'arachide. le président de la république boobu ba léegi lu mu wax tegg ko. Mm-hmm. ministre yi lu ñu toog jéem la rassurer ci ay points teggi ko donc dañu dem ba moment boobu bouillonnement bi daf ciy am importance parce que nit ñi xam nañ ne li ñu leen di wax dañ koy wax rek juste pour le ministre Ndongo est-ce que yow nekk ngaa l'aise ci àll bi ndax boo génnee béykat yi nan lañ lay gisee ndax gis li may dégg béykat yi di ko nettali ci plateau yi di wax ni ñi ngi leen di romb ak seen nari gerte ak seen camion gerte kenn jënd ko ndax yow loolu gis nga ko ndax euh, wax nga ci ak président ak lan nga ci leen ci mën a jàppale ndax jàpp nga ni loolu itam euh, dina yombal seen campagne foofu ci ci ci monde rural bi. Papa Ngagne je suis très à l'aise. déedéet ni nga ko waxee déglu ma rek. <laughs> bu may dem ci àll bi je très à ban dëkk la. bu mën a doon man Sadio laa dëkk. Mhm. très fier de de de de de ça. Mhm. te bu may dem ci àll bi ku kontaan lay doon. ndax président bi ma àndal. dafa jox cër waa àll bi. Mhm. te nag xam nga nit tamit doo ko doo jël rek le jugement te te dina ñëw ci gerte gi mais doo jël sax ci li Macky Sall def rek nga def ne tey deux mille dix huit rek moo fi am. depuis deux mille douze ba léegi. Mhm. le président acte bu mu posé. dafay aller dans le sens de dooleel waa àll bi. Mhm. muy ndimbal yi. muy yokk jiwu bi. muy dimbale ci mbirum ceeb bi. loolu lépp li ci yokku kenn xamul nu mu toll c'est vrai que euh, kii bi nu mu tuddati njënd njëndum gerte mi am na am na am na ay ay ay ay ay. tuuti problème am ah? na problème tuuti problème la ah? am na problème. <laughs> Ah, xam nga man xam nga man Pape Ngagne lu lu ma wutaleeg homme politique yi am fii Sénégal yëpp. waaw y compris le docteur qui me déçoit un peu. ok je ok mooy ne ñoom dañu dañuy changer. Mhm. da ngay mel nii. suba nga mel nii. yow moom ni nga mel rek nga mel. man ni ma mel rek laa mel. d'accord li ma mel kon kon ñu ngi lay dégg Sall mi ma bis bu defee lu ma d'accordul ma ne ko d'accorduma. man loolu laa mhm. léegi nañu non respecté bi xaaral ñu taxaw ci moral boobu. non dem ci question c'est très important. xam nga bilaay nga ci li nga bëgg a wax. non c'est très important ah, parce que. parce que tey boo àndee boo gisee ki euh, docteur Diouf. Mhm. tey mu bëgg tagg président Wade ak liñ ko fi wax ñoom. Mhm. mais loolu problème la. ok suñu toogee fii ba tey. Mhm. Karim Wade. nga xam ne wax dëgg yàlla ba muy yor àddina ak li ci biiram. nga xam ne moo yor li ci kaw li ci diggante bi ak la ca suuf lépp mënul gagné bureau de vote ñu ne ñun muñu dañ ko ragal. mais ça c'est problème te loolu nag il faut que ñu fàttali ko Sénégalais yi. d'accord ça c'est pas une boo xam dañ ko parce que démb dafa am tay am suba di am. Mm-hmm. Mm-hmm. c'est très important. d'accord te nag gis nga dama lay wax nag Pape Ngagne lenn loo xam ne ñun Sénégalais yëpp dañ ko war a gëm. Mm-hmm. mooy nit du la gën a xees rek nga jàpp ne moom moo la gën. nit du nekk doomu président man doomu baykat laa. Karim Wade gënuma ba jàkk-jëkk ñuy fële rek ñun ñu dafa war a gis parce que c'est le fils de Wade loolu rek moom la am ci mbir. tontu si li ma la laaj si naka nga ne ne nga nekk nga à l'aise wax nga gerte gi am na problème lan mooy solution bi léegi. solution bi solution bi c'est en train d'être trouvé c'est en train d'être trouvé la chose qui est importante aujourd'hui waaw mooy ne àll bi lu bari def nañ ko fa. gerte gi lay wax dem no gerte gi gerte gi déggoo li ma la wax. gerte gi xaaral ba eh, ba ba ñu ne. campagne bi tëj non da may déglu une campagne euh, agricole dure sept mois. ok yow. mën naa am xam nga ci dara man àll balaa dëkk. léegi ñu dem léegi ñu dem campagne agricole dama la bëgg a wax ne la campagne agricole. bu am bu fekkee amul sax bi ñuy ñëw fii réew mi. waaw koo ne woon kii mu ne la bon MP lañu ma juróom-ñaari at a ngi nii. bon MP moo dellusiwaat mais moo dellusiwaat dama lay dommage non non xoolal loolu da ngay xool li ko waral. bon MP yi moo dellusiwaat non ren dafa am loo xam ne une situation exceptionnelle. situation exceptionnelle bi mooy lan. Mhm. mooy ne lu fi daawul am dafay am. Mhm. ba mu loo xam ne. il faut que mu am yeneen yeneen mesures yu bees loolu rek moo fi am. na fi daawul am mooy lan. gerte gee bari am am am un million quatre cent mille tonnes mosul am ci Sénégal muy record. ñu war a am yeneen disposition yu bees yu ñuy jël. en attendant te disposition yi dañuy bàyyi ba deqi ba. président da nga may déglu rek président Macky Sall la mu tàmmaloo woon la tàmmaloon. waaw baykat yi. Mhm. Papa Ngagne. Mhm. loolu la leen defal. Mhm. mooy ne mosuñoo yëkkati seen loxo. d'accord ne am nañ bon impayé ren jii aussi. du ñu yëkkati seen loxo mu ko ne bon MP. non lay wax nii dama lay wax rek loolu moo fi am. problème de quinze jours wala deux mois. un retard ak ak problème bu cons loolu mën loolu mënu fi am. problème basi front social bi ci la ñu taxaw gis nga ko fi la ñu daaneele muy monde rural bi jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund ak santé bi mu nekk loo xam ne itam lu lu yéeme la euh, am nga ci mbeteel fi ñu ci toll nii yow. waaw Pape balaa mooy ñëw ci front social bi très rapidement ma rebondir sur la question de Karim Wade en définitive pour ma clore ko mhm. jox leen ñoom message ak yóbbal mooy euh, je vois que ils sont tous traumatisés par la candidature de Karim li tax ma ni ils sont tous traumatisés c'est à l'instar de Macky Sall wax naa ko fii tout à l'heure nee la benn nit mooy ki nga xam ne tey jii moo jaaxal Macky Sall muy Karim te lépp lu muy liggéey guddeeg bëccëg bokk na ci jéem koo faagaagal mais ma leeral leen une chose xam nga discours bi muy tenir ay Karim def ne lii def muy discours bi nga xam ne procureur Aliou Ndao ak ña mu àndal baleen Macky Sall yabalee pour ñu def seen conférence de presse boobu seen wax yooyu ñu doon wax wax yore Karim Wade jël na 4000 milliards milliards en définitive fu mujj France daal di xidem dërëm bu gën ndaw s'il te plaît mm-hmm. s'il te mu égale bu yàq débat bi nag non non non non non noonu mooy am sax inchallah def débat boo xam ne dana am ci sénégalais yi ngeen def ngeen lu nekk envoyé ay commission rogatoire un peu partout dans le monde vous n'avez trouvé un seul franc Mimi Touré taxaw na fi non dama ci ci laay terminé ci laay terminé moom doog a ñëw ci front social bi wax mbiri deux cent cinquante milliards que leen njëkk a démentir c'est le président de l'Assemblée nationale Moustapha Niass ne mësul yëg loolu parce que mësul am benn loi de finances rectificative boo xam ne taxaw na pour jëmmal loolu kon donc mbiru Karim Wade affaire u tappale waloon complot politico judiciaire la woon def ngeen ko mais du tey il sera notre candidat te ma xamal leen ni nag mi ngi ci yoon mhm. Karim Wade sera là au Sénégal dana nekk candidat na Macky Sall pare na jël armée na jël def lu ko neex nu nous sommes déterminés à l'imposer comme notre candidat loolu do c'est important par rapport maintenant ak euh, front social bi mooy euh, li xew Sénégal tey jii mhm. en dehors de de la tension politique mhm. li ñu gën a inquiété tey ñu lu ñu war a gën a inquiété mooy tension sociale bi am ci réew mi nga mhm. Ngagne amul benn secteur booy laal ci Sénégal te nekkul en ébullition nekkul en difficulté jëlal wàllu enseignant yi wax naa ko fi tout à l'heure c'est un problème yéen vous préférez dem fële ci ñaajo def fa ay palais wu cent milliards moo leen gënal régler problème mu enseignant yi yéen li leen gënal tey mooy dem lebi cinq cent soixante-huit milliards ci tubaab yi pour jëm ko jox ay Alstom pour jëm leen suqali ndax ay société française loo xam ne dañu daanu ngeen dañ leen suqali te attention ma taxaw ci teer boobu lu graaw ngeen def ci mbiru terre boobu taxaw ngeen ci Sénégal na cinq cent soixante-huit Ousmane Sonko taxaw ne leen ëpp na mille milliards ngeen wax ne du dëgg. Mhm. ci seen PTIP mhm. bii programme triennal d'investissement bi. d'accord yéen li ngeen ci wax mooy 665 milliards te bu ngeen calculer intérêt si nekk mat na 1000 milliards ëpp na ko. kon c'est un problème. toujours en parlant de front social. ñu ñëw ci wàllu mbay mi. Mhm. ci wàllu monde rural bi. may xamal suma xarit nongo comme ñoom dañu nekk dans le gouvernement et ils sont pas au fait de l'information c'est un parce que mënoo nekk ci gouvernement te xamoo li fa xew ma la yëgal ni fi mu toll ni Sonacos 16 milliards la amel opérateur économique yi ba organiser nañ fi ay manifestation def nañ fi ay conférence de presse lan la am comme résultat mooy baykat yi nga xam ne ñoom ñoo yaakaar seen xaalis ci producteurs yi mhm. ba léegi jotaguñu seen xaalis kon bul wax mbiru bon e, <coughs> impayé tous les paysans son appauvris par Macky Sall monde rural bi képp koo ci gis tey jii mi ngi jooy li nga xam ne moom la leen Macky Sall amel kon bu leen fi wax loolu parlant toujours de front social wax naa ko tout à l'heure et c'est extrêmement important Moustapha Mohamed njàng mooy li nga xam ne mu ëpp solo ci Sénégal tey yaa ngeen di seetaan lu doy waar am na ay étudiants yoo xam ne c'est des bacheliers amuñu place ñu orienté leen ci école privée laaj leen étudiants yooyu ndax ñi ngi jàng wala jànguñu 71 école ñoo tëj seen bunt dàq étudiants yooyu. moom ne leen carrément 16 mm-hmm. milliards la ñu état bi ameel bu ñu état bi fayul. 16 milliards seen élèves yi du ñu jàng. voilà kon boog dama bëgg a termine daaneel ci loolu. Mm-hmm. dans ces conditions su ma doon énumérer front social bi duñ fi jugee. ci yan condition ngeen mën a taxaw ne Macky Sall dafay falu fii Macky Sall c' parce que xam na ni du falu xam na ni il est minoritaire dans pays moo tax mu bëgg a jalgati élection yi en tripatouillant la constitution. à travers l' introduction de ces de loi. loolu la ñu wax ni. voilà jour boobu danañu joxe suñu bakkan. mais Macky Sall du ñu nangu loi boobu jàll fi. voilà Bachir jërëjëf alors Mouhamed Moustapha ci beneen wàll bu ñu jëm rapidement sànq ci sa biir wax yaa ngi may wax ni réew mi am na démocratie ndax enseignants yi ñu ngi génn kenn tëju leen mais fii rek la ñu tëj maire capital ci kaso bi fii la ñu tëj maire commune d'arrondissement ci kaso bi moom moment bi may wax ni Khalifa Sall ak Barthélémy ñëpp ñu ngi ci kaso bi est-ce que loolu taar la ci démocratie ci Sénégal ñëpp jàpp ni dara warul ko lu dul xeex ci wàllu politique ndax taar la ci démocratie du ñëpp ñoo ko jàpp quand même. d'accord euh, parce que xam nga wax naa sànq ni. Mhm. Euh, kii le euh, maire Khalifa Sall suñu ko jàppee juge bu woowu ko parce que da ko jël jàpp ci ab meeting. Mhm. dañ ko dénk xaalis. Mhm. tuddi ko quinze caisse d'avance moom ma tuddi ko ay fonds secrets. kon juge bi moo décidé kon c'est c'est c'est une question de gestion. d'accord mu tëj ko ok tëj ko. Mhm. Barthélemy euh, Barthélemy li mu wax euh, man je très mal à l'aise wax Barthélemy parce que papa ji sama xarit la euh, li mu wax magistrat yi moo ko yóbbu foofu vraiment ça n'a rien à voir avec le. le chef waaw maa ngi ciy ñëw. sànq kii sax wax na affaire président yi président Macky c'est un grand républicain te li ma wax dama ko xam en 2012 bis bi conseil constitutionnel. Euh, euh, déclaré que candidature wala Wade mën na nekk dañoo dajee siège ba ñu waxtaan ñu ne ñun restons républicains dañuy dem campagne bis ba dañu dem campagne. Mhm. kon vraiment nekk fi di wax ay affaire armée ak yooyu vraiment kooku yàq si wax la rek quoi ku ne xam ne président Macky Sall ku yarul la nitu jàmm mais li ñu wax ni moo ko wax waaw non xam nga parfois y a des campagne ñu déplacé ko non man déglu naa ko dégg naa comme dégg nga ko baax dañ koy déposé dans déplacé mais dama ni dama ni il faut mais fee man fee yi gis nga muy Wade muy muy Macky wax dëgg yàlla bëgg nañu jàmm parce que président Wade dafa mës a wax ni. Mhm. dama jaay ci cadavre pour dem palais. dañ ko nangu ok Macky aussi même chose. fii mhm. Sénégal réewu jàmm la parfois nag xam nga bu ñu nekkee ci meeting yi suñu yaram tàng dañ wax lu nekk mais ça ne veut yooyu. waaw ah, maa ngi ñëw. maa ngi ñëw man Barthélemy kenn yéen ko. waaw d' accord égaleel rek sax ñu bàyyi vraiment maa ngi ñaan ñu bàyyi Barthélemy. waaw euh, bi ci tegu nga bay ñu aussi ñu wax parce que apparemment dañuy wax ni defuñu fi dara. ok président Idriss Seck jóge na fi dem ba sëju. Mhm. ne Macky Sall def fi dara ma xam dafa gëj ci réew mi dafa yàgg Saint James. Ah, parce que boo boo jugee ku daan dem ku jógee man am naa chance du wër réew mi. Mhm. boo jugee Fatick jëm Kaolack di daan tukki jugee Kaolack dem ba Kër Ayib dugg biir Nioro baa nga jël euh, yoonu Linguère euh, jëm Matam de visu da nga gis li mu def ci ay pont. Mhm. pont de l' émergence pont Foundiougne bi bis bu nekk mu inauguré. mais mënoo wax ni def fi dara. d'accord PUDC bi da nga gis ci àll bi. Mhm. village boo xamante ne bii bu njëkk pour nga dem marché laa wax. Mhm. mën ngaa mën nga faa def mën nga faa yendu parce que amuñu piste. mu dagg fay piste. d'accord nga di ci àll bi ñoo xam ni forage. d'accord ma ma non laal nga ci non non non il faut ma dagg. bi moo jeex te il faut ñëw ci. waaw waaw ma ma ñëw fii ku ci jàll ñun ñu dëkk Thiès. waaw nga xam ne pour njëkk mën nga mën nga mën nga pour man nga sax toog 6 mois du dem Thiès ndax boo jaaree autoroute tey ba Mbour wax dëgg yàlla nga xam ne président Macky def na fi dara am bourse familiale yi souvent mooy gis politiciens yi ci wax dañ nañ bàyyi di ci wax nañ laaj ñi nga xamante ni moom la ko Macky Sall di wax di jox président daal ci wàllu liberté nan nga gisee tolluwaayu réew mi docteur Abdourahmane jox naa ko exemple ñi nga xam ni tey ñi ngi ci kaso bi mhm. rawatina ku mel ni Khalifa Sall ak lu mën a xew mhm. ndax taar la ci suñu démocratie non mënul mënul mënul nekk taar bon sama seen élément de langage yooyu lañ am rek pour présenter bilan boo xam ne yegsiwul monsieur le ministre euh, man tam du ma xonk di ñuul cest di dire que bu dee décevoir naa la parce que damay défendre ay principes république je suis fier de vous avoir déçu sama discours du changé nit ñi xam nañ ne ay principes laay défendre te nekk nekkuma di wut ay. ay approche partisane di wut ku ma faral loolu ça ne ça ne m'intéresse pas léegi nag bu dee da xaar ci opposition bi mu nekk sa porte parole pour di la waxal sa yu baax bon du du ci mën nga koy am alors gis nga balaa may ñëw ci loolu nga baal ma ma waxaat tuuti ci économie bi gis nga Sénégal dafa nekk presque état boo xam ne dafa nekk en faillite les gens n'en parlent carrément en faillite faillite mooy amatoo xaalis c'est-à-dire say soxla mënatoo ko fajal sa bopp Sénégal foofu la toll donc moo tax yi nga xam ne même dañu la koy proposer di la ko présenter comme ay yu comme par exemple nga dem eurobond ne jox nañ la mille deux cent milliards nga ne parce que ko am parce que liggéey sa taux croissance baax gars yi la jox la xam nga foofu am na changement bu ah, fondamental loolu ma jaaxal fayit ak croissance su 7 pour cent maa ngi loolu man moo ma jaaxal déjà croissance bi yàgg nañ ci wax croissance mhm. bi man dama leen di wax ne du wax ne la croissance ne se mange pas la croissance se mange mais seulement ñun suñu croissance ay caviar la ay estouffade de ay navarrais au poids yoo xam ne France lañ koy lekk ak feneen suñu croissance richesse boobu lekkuñ ci dama daal lekkuñ ci maafe lekkuñ ci ceebu jën mhm. donc croissance bi ay fonds roche yooyu nga xam ne da jël cinquante six milliards jox leen wala ay Alstom ñoom ñoo ciy profité dem lekk ko sénégalais lekkuñu ko mhm. donc ça se mange mais ça se mange pas au Sénégal loolu benn élément la gis nga eurobond boobu ñuy wax ak endettement bi fi mu toll nga xam ne ren fi mu ne nii dépassé nañ 60 di bëgg attendre kiw UEMOA bi xam nga lu ci doy waar avant Sénégal dafa amoon signature parce que suñu gestion finance publique dafa baaxoon ñu ne ah ñii kat ni ñuy gérer seen dëkk baax na mooy temps programme ajustement structurel nga xam ne dañuy ñëw ne la waroo jël ren dix magistrats cinq ngay jël bul recruter enseignant teg la système austérité boo xam ni ñoom ñooy ñëw ne la ah yow kat tu es un bon élève kon boo ñu lebayee ñu lebal la mais xam nga léegi lan moo changé léegi li tax ñuy lebal Sénégal c'est pas parce que suñu gestion dafa baax mais parce que dañu am gaz bu génnagul dañu am pétrole bu génnagul fu Sénégal taxaw lépp ëllëg dañ lay lebal parce que xam nañ ne dans tous les cas di nga fay xam nga endettement Sénégal ak eurobond bi ban système la ma jox ma terminer foofu mhm. je pas nagam seetaan ngeen le film le mandat de Ousmane Sembène mhm. très bon film bien sûr mandat bi Ibrahima Dieng la waaju tudd mhm. ñu woo ko France ne ko am nga fi mandat vingt cinq mille mu commencé di wër di leb. di uh-huh. dugg ci tànt yeeg bàjjen yeeg et cetera. ñu dem ba ci biir mu rendre compte ne vingt cinq mille yi deux mille la ci am. Uh-huh. bor mu jëloon yëpp xam na ne mënatu ko fay. c'est-à-dire uh-huh. que benn moment dafa bénéficier de la crédibilité. du ko mandat bi di jox. d'accord am signature. pour leba leba leba leb Sénégal foofu la toll et c'est dangereux xam nga lu tax. foofu ngay daanelee s'il te plaît foofu laay daanelee effectivement parce que gouvernement bi fi nekk tey ak président Macky ak ñi mu àndal waaw. coow pétrole yi ñu ngi koy mais je pense que comprendre ñu enjeu pétrole. enjeu pétrole ci mooy li war a mën a jëlee Sénégal tey ci dëkk bu ndóol dugal ko ci dëkk bu am koom. ci liberté malheureusement ci liberté voilà malheureusement pour yi ñuy pose acte yi pose actuellement ci endettement. boo deful nànk nañ ma baal mais dañuy mel ni Tchad c'est-à-dire que am pétrole dix ans après mënoo fay ay fonctionnaires donc loolu il faut ñu tirer ci attention liberté yi. man dafa am ce que j'appelle la césure de l'expression des libertés publiques au Sénégal mm-hmm. loo xam ne bon malheureusement euh, pouvoir bi passé moo ko fi tegoon Macky Sall contre ko mais bu mu ñëwee changé ko mooy l'arrêté du 20 juillet 2011 mm-hmm. arrêté Ousmane Ngom Ousmane Ngom gis nga dama ci attirer d'ailleurs attention ñun opposition ci xeex bi ñu war a xeex contre parrainage gis nga arrêté Ousmane Ngom bu amoon avant le 23 juin man ci sama analyse le 23 juin du am parce que arrêté bi dafa wax expressément ne fépp fuy lieu de pouvoir au Sénégal palais assemblée cour et tribunaux amoo droit def fa rassemblement donc nañ ñun tey suñu stratégie bu dee dañ ne dañ nar a taxaw ëpp assemblée nationale pour duñ voter loi bi c'est booy ñu xam ne loi bi dinañ ko voter parce que dañ fa dul yegg parce que kenn du fa yegg dañ fa dul yegg léegi nag président Macky Sall foofu la nekkul progressiste parce que la même chose la defoon avec le mandat du président de l'Assemblée dafa ne contre na ko mais bu mu ñëwee changé ko bii c'est la même chose donc tey les libertés ma terminé foofu nga baal ma les libertés son bafoués parce que moom li mu xalaat tey mooy forcing forcing bi police moo la koy may ak gendarmerie en sachant que ñooñu dañu républicain li leen seen chef wax moom la ñuy def mais ña fi nekkoon avant bu ñu doxaloon noonu président Macky ci boppam du voilà du egg si foofu donc euh, Ndongo wax naa ko léegi ci wàllu liberté yi mu mel ni tam ci lu ñu lu ñu bëri di ñaawlu la euh, ci nu justice di doxee dama ci dégg sax loo xam ni daanaka mës mësuma ko dégg maanaam justice jël benn décision fu wax bu ñaaw jógee ci rafetlu ko rek jóge na fa loolu nga xam ni egg nañ fa ci eeru Macky ndax jarul nag ñu taxaw ñu xool ko ñu gis itam ay kilifa yoo xam ne ci wàllu politique kii maire capital la ñu jàpp tëj ci kaso bi kii maire commune la ñu jàpp tëj ci kaso bi ndax tëj yooyu nga xam ni tëj nañ ko euh, tëj yi ñuy tëj ndax itam bokk na ci li nga xam dina taaral suñu démocratie. bala may euh, répondre sa question boobu dinaa kii rek benn benn benn leeral bu ndaw boo xam ne sama frère Bachir Diawara moo ko wax sànq. xam nga ñaawal na enseignement supérieur tellement que mu mel ni defuñu fi dara te enseignement supérieur kuddu moo ko représenté wala euh, service sociaux yi maanaam li ñuy jox étudiants yi ak nañ leen di jàppale. étudiants yi boo xoolee diggante 1960 ba 2012 ñeenti téeméeri lal moo amoon université Cheikh Anta Diop ñu bëri si ñun jaar nañ fa tey yokk nañ ko yeneen ñeenti téeméer. cinquante ans six ans toll na ni moom te yor nañ programme boo xam ne ba deux mille dix neuf y aura dix huit mille nouveaux lits donc xam nga ni foofu ay jéego yu bari am na fa. Mhm. déggato étudiant buy grève mukk di wax naan suñu lekk dañuy def nii suñu lekk restaurant argentin. Mhm. léegi nit day jënd ticket ngir dugg ci biir ngir jéem a lekk foofu parce que tellement le plateau est relevé donc ay ay ay mbir. soppiku am na foofu te avancé ku ne xam na ni enseignement supérieur jéego yu bari am na fa. d'accord sur le plan de la France aussi pour pour répondre à mon à mon ami euh, euh, docteur Diouf mooy ne dañu fi nekk chaque jour ñuy diaboliser naan France nii France naa. fa la ñuy lekk croissance fa la ñuy lekk nii fa la ñuy. non damay supérieur c'est la ñuy lekk croissance bi moom mii nga xam ne moom patron. moom mhm. patron. Mhm. il passe la moitié de son temps en France. sa mhm. cette France qu'il veut. Ah, mais sañ na ko moom. amul benn amul amul France amul dénkuñu ko dara. France France kenn ci ñun inventé wu ko France dañu am histoire ak moom te loolu c'est important ñu dund ko. Mhm. taaw Alaaji Malick si mhm. dafa demoon xeexal yi France. taaw Cheikh Ibra Fall moom Serigne Touba dafa demoon xeexali France. te ñooñu kenn du ma wax ni ab duñu ay républicain gëmuñu seen réew gëmuñu seen diine mhm. donc histoire moo ñu boole mhm. histoire boobu nag taxul ñu jaay ko réew mi réew mi lu ne waaw d'accord fi war a am investissement nous sommes dans une période de mondialisation liberté yi euh, xam naa ni dinañ ma may liberté yi aussi liberté yi c'est très important waaw ci mbirum xalifa Sall mi tax ngay wax ak Barthélémy Diaz Khalifa laay tàmbalee man tàmmuma sama nature personnel mhm. ambulance romb ma du ko def mais jàpp naa ne yoon woowee fi newoon ba fa ñoom Bassirou Diawara di ne nekkoon jiite réew mi yoon moomee les magistrats les juristes mhm. yoo fi nekkoon ñoo fi nekk ba léegi d'accord ñoo woo ñoo woo Khalifa Sall ci lu ñu jàpp ne lu lëndëm la. mais yoon boobu tam daan nañu gis ñu jàpp yoon boobu ngay wax li nga xam ne xam ñoo xam ni ci PDS la bokk bokk ak ñoom mouvance présidentielle tëj ci kaso bi te loolu gisuñu ko ak yoon bi Papa Ngagne waaw nga ni ma yoon boobu moo fi nekk ba léegi yooyu ñoo fi nekk. ah d'accord ok te gis nga nag homme politique dafa am lenn loo xam ne il faut que ñu waxtaanee ko. waaw d'accord gis nga homme politique bu bu bëgg nekk président sa premier objectif sa premier tànk bi nga war a njëkk a def. Ah. mooy raxas sa ba mu set. d'accord mais homme politique boo xam ne da nga bëgg di aspirer jiite réew mi. te setoo. te setoo. homme politique boo xam ne da nga aspirer jiite réew te bu ñu la laalee rek nga ne politique a tax ñu laal ma politique nga tax ma laal ma nañu bàyyi loolu. te xam ne. réew mi aussi ñun ñoo ko bokk. d'accord Bachir kenn nag kenn nag xatanda rek. waaw man ma daaneel foofu rek rek. kenn nag yéenewul kenn lu bon. waaw mais inventé bu bees bi. Mhm. nañ ko bàyyi. d'accord merci beaucoup Bachir ci wàllu liberté yi gis nañu ne egg na foo xam ni euh, xaw na doy waar mel na ni itam yéen euh, rafetlu leen ko parce que ñu bëri ci yéen daanaka dugg nañ kaso. li dugg ci kaso ci APDS kenn mosu ko gis. xam nga mooy li ma la wax tout à xam nga réew mi. Mhm. su fekkee bëgg nañu avancer. Mhm. faw ñuy xoolante di waxante dëgg di xool li nga xam ne mën na doxal réew mi ci kanam. Mhm. xam nga far loo far far far aussi tamit waxal dëgg te yàlla tax. man toujours lool laa leen wax en dehors de la politique nous sommes ay la lañu. am na loo xam ne boo ko dee wax ma lay xool sax <laughs> yaakaar naa ni dana am ko xeeb moromam. nañu waxante dëgg yàlla tax Macky Sall ba mu faloo ba léegi. ci wàllu liberté c'est le plus mauvais c'est le pire exemple bi nga xam ne moom la Sénégal am ci wàllu président boo xam ne day noot ay liberté firnde yi yomb na gis nga ci biiru Karim Wade bi ñaata nit lañ ci jàpp ci lu ci bari ay délit d'opinion la dangay wax sa xalaat ñu jàpp la comme Barthélémy Dias ñu ko jàppee comme kenn ni ñu ko jàppee mbiru Khalifa Sall tout le monde sait ñëpp xam nañ ni Khalifa su fekkoonte ni dafay jàpp dafa ne dafay jàppale Macky Sall mais tey du ngeen ko tëj seen ministre mbay Ndiaye moo taxaw ne Khalifa Sall il a un problème politique avec le président de la République mhm. Mhm. kon yéen vous êtes mal placé tey jii pour mhm. parler de justice dans ce pays te ma xamal la une chose suñu justice réew ñu ngi ñuy ree xeeb nañu ba pare te partout dans le monde nu sommes la risée maanaam ñun dañu xool dañu xeeb juge dem li tax mu démissionné conseil supérieur de la magistrature lan moo tax ñoom Téliko ñoom ñëpp di rebellé wu lan moo tax 47 professeurs de droit taxaw ne Macky Sall sa constitution bi nga bëgg a proposé texte bi nga proposé jaarul yoon c'est parce que Macky Sall dafa bëgg nekk benn Hitler fii ci Sénégal c'est ça réalité non le moo ne pas trop parce que dañ fi gis loo xam ne fii ci Afrique war na yee Macky Sall bu baax liberté yi niñ koy salfaañee fii ci biir réew mi bokk na ci li nga xam ne moom moo yóbbu ki nga xam ne mooy Blaise Compaoré ci Ardo loolu il faut faire très attention su Macky Sall continuer dans cette situation la mais mun na connaître le même sort que Blaise Compaoré d'accord su fekkente ni ay rapport yoo xam ne ci laay terminé parce que bu ñuy wax liberté dañuy wax yamale ñëpp mais fii gis nañ fi ay rapport yoo xam ne rapport yu bare baree baree bari Macky Sall jël na ko teg ci loxom moom moo ko wax sax ni teg na ci loxom rapport bi ci njëkk mooy rapport bi nga xam ne nag def na ko 2014 2015 génn leen ko ba liggéey rapport UG 2014 bi nga xam ne mi ngi wax ci mbiru titre foncier 1975 R fële ci Bambilor waxu leen ci pourtant état bi lu mu ci perte ci ay milliards bari na. d'accord égaleel. Mm-hmm. nga ñëw ci rapport 2016 ARMP dafay épingler ay service su état yu baree bari ay déttu yu liggéey ak Macky Sall ci ay naka sudul ndoonu ci ay. jalgati. d'accord kopparu réew mi. d'accord kenn woowu leen. nga xool affaire Big tagu mooy xaritu Macky boobu nga xam ne moom moo nekk fële ci Côte d'Ivoire. Mhm. nañ ko indemniser ba léegi ni leerul ñi koy laaj pourtant mhm. gars yi def nañ ci rapport. nga xool aussi tamit affaire port autonome de Dakar. Mhm. ba ki nga xam ne mooy directeur yi port bi fa ne. wax na ni am na ay njomba yu rëy yu mu fekk ci biir port. ana Cheikh Kanté. tey dañ ko renforcer jox promotion. loolu mooy démocratie loolu mooy état de droit. ma terminer ma foofu mooy benn point bi. <laughs> scandale privatisation King Fahd Palace 2013 rapport IGE. Mhm. waxu leen ci c'est-à-dire en matière de. transparence vous êtes l'incarnation n'est-ce pas. du manque de. merci beaucoup jërëjëf de transparence ku nekk tàggu li nekk. ci xelam rek parce que mënu ma ko def mot de la fin. ñàkkul kenn ku ne am na loo bëgg intervenir ci nekk nag sa mot la fin s'il vous plaît. moom benn magistrat ci 500 magistrats nga ne justice bi mais loolu aussi problème la yow tamit. ñaata magistrats 500 magistrats fekk 500 magistrats benn magistrat bi ci tegu même ma yeggale s'il vous plaît. wax nañ fi wax nañ fi wax nañ fi vraiment euh, docteur. su nga investissement direct étranger maanaam li étranger dugal Sénégal sept mille vingt milliards. Mhm. kooku réew moo xamante ni bii la ñooñu daanaka gëmuñu ci affaire xaalis gëmuñu yàlla. duñ jël seen alal di ko def ci réew moo xamante ne bile la doxul. bi ci teg réew mu mais bien sûr. te xam nga te xam nga euh, banque mondiale FMI. Mhm. dañu am ay ay ay agence notation yoo xam ni. Mhm. da leen di jox pour ñu vérifier chiffres yi. Mhm. muy muy bari bi ci tegu wax na fi aussi affaire endettement. xam nga affaire dette affaire dette euh, réew moo xamante ni bile euh, mënoo rembourser kenn du la lebal. nous sommes à 65 pour cent. par rapport aux critères de convergence. jege nañ soixante-dix. non nous sommes à cinq pour son mais on n'est pas dans la banque. te te te dama ni. c'est parce que Sénégal am na capacité de remboursement. moo tax muy ñu koy ñu koy ñu koy lebal xaalis. d'accord arrêté Ousmane Ngom Pape euh, xam nga boo bëggee marché ministère de l'intérieur mbaa pale baa fu la neex mais am na koo xamante ne bii jigéen bu bëgg matu bëgg dem principal. am na ko am soxla ministère de l' éducation nationale. mais da ngeen ko doon xeex non s'il vous plaît non non. mais da ngeen da ngeen ni woon du fi amee arrêté boobu. dëkk bi dëkk day xam nga dëkk dafay. dafay non xam nga xam nga la liberté. na de ah. Pape arrêté bi da ngeen lépp loo gis àdduna dafay dox ci façon marche yu njëkk yi xam nga ñii bu njëkk da daan def spectacle li jaratu ko parce que yow euh, seen marche yi ba la nga koy def mais deux pale ak trois pon di ñooy ñëw boobu ba léegi mën leen mobiliser peuple bi ci yi ngeen di wax nii c'est-à-dire c'est pas possible bu leen am euh, euh, un autre juin bu leen comparer situation wu koo xam ne dafa bëggoon def troisième mandat ak affaire u comment dire parrainage vraiment bu fekkee ci loolu ngeen di compter vous ne pouvez pas vous ne pourrez pas mobiliser le peuple autour de ces kii pour terminer rek euh, pour pour affaire pétrole bi bi dañ bàyyi affaire pétrole bi mhm. les contrats là sont sont sont publiés li ma wax ci Karim Wade c'est de l'argent qu'on a décaissé mhm. te bu fekkee affaire jàpp la yéen vous êtes champion du monde yéen yéen a jàppoon Idriss Seck. Mhm. Idriss Seck moo jàppoon Mbaye Diouf. donc il faut ces choses là. d' ci ci précision yu am importante rek après ma con ma conclure. Euh, monsieur le ministre dire que Idrissa Seck passe la plupart de son temps à l' étranger nga baal ma ci wax ji mais du ça ne correspond pas à la réalité c' est pas exact c' est pas du tout exact loolu benn la deuxièmement ñu nekk ñu ci situation diabolisée France du la France est un pays ami nous le savons mais nag dafa fekk ne Demba ñun Demba moo ñu gënal Dupont am nañ ci droit gis nga président Emmanuel Macron intérêt France lay défendre d'abord président États-Unis intérêt États-Unis lay défendre d'abord America first. Mhm. ñun dañu bëgg am système boo xam ne. Sénégal Sénégal first lay doon Sénégal d'abord. ok tekkiwul ne danga bañ France wala da nga bañ États-Unis mhm. mais intérêt Sénégal. Mhm. moo lay jiitu mooy jiitu. intérêt France wala keneen. Mhm. bu boobaa nag loolu le président Ablaye Wade bi ñuy wax ne maa ngi koy. tag l'avait bien fait da ngay am diversification. du partenariat bu la France di jaay oto 1 million. nga làmb feneen la di maye 500000. ok da ngay jënd bu 500000 bi doo jënd bu 1 million. ça c'est fi may terminer. voilà dëkk bi wax nañ bouillonnement social bi. Mhm. wax nañ échec économique bi. encore une fois dañ ñuy lebal parce que pas parce que dañu am lu ñu fay actuellement mais parce que xam ne am nañ pétrole am nañ gaz jox naa la exemple lu Tchad dañuy pomper pétrole jaay fay bor mën mënuñu fay salaire donc instant bi dañu nar a nekk di écon hypothéquer suñu économie xaalis boo xam ne moo war a ñëw deux mille vingt cinq deux mille trente deux mille trente cinq moom la ñuy hypothéquer actuellement te duñ ci jot. face à tous ces échecs là nag ñun am nañ alternative. Mhm. président Idrissa sec boobu ngay wax nga xam ne contrairement à ñeneen ñi jëm nañ ko taxal taxal bu ne mënuñ jot ci moom. complot complot bu ne mënuñ jot ci moom daaw dem nañ fi ba procureur autosaisiru président Macky Sall ne ko tegal ci suuf parce que xam nañ ne amatul lu ñu tegal ci dara dañu nekk ci liggéey di xool suñu kanam pour proposer alternative. Hmm. weekend bi la ñuy commencer consolider suñu programme li nga xam ne moom la ñuy proposer sénégalais on va le faire à on a toutes les expertises. comme ça ñun bu ñu ñëwee teg fi loo xam ne bokkul ak promesse yi nga xam ne. moom la ñuy proposer parce que le Sénégal de demain que nous devons laisser à nos enfants. voilà c'est Sénégal du pétrole et du gaz. jërëjëf te malheureusement gouvernement bi fi nekk comprendre lu ñu enjeu. ndongo si si conclure conclusion damay jeexale fi mu tàmbalee. Mhm. moom daf ne le Sénégal d'abord moi je dirais le Sénégal d'abord oui mais le peuple d'abord. Mhm. le peuple mooy romb na ñun ñii toog fii. Mhm. damay ñaan peuple bi nga xam ne mooy sama mbokk yi dëkk ci réewu taax yi ak ñu dëkk ca kaw ga di samay mbokk ñu bàyyi xel ci ñetti nit mm-hmm. mooy nit ñiy soppiku mm-hmm. ngir bëgg a jël place su président Macky Sall mm-hmm. nga xam ne danañ soppi seen lépp danañ soppi seen yëre danañ soppi seen waxin danañ soppi seen discours danañ soppi seen tarixa danañ soppi lu ñu am lépp ngir bëgg a am image bu bees ngir nax nit ñi you can fool some people sometime but you cannot fool all the people all the time mooy kenn nit ki keneen ki ci des mooy ki jàpp ne moo gën ñëpp ndax bàyyam président la woon nañ ko bàyyi xel xam ne réew mi ñun ñeenti président fi am am na fi ñoo xam ne ay doomu baykat lañ ci ci ci dooley ñaq ci lañ dund ci dooley ñaq lañ leen jàngale ba ñu mokkal ba taxaw fii te ñeme nañ lu ne ndax seen ginnaaw bandaat troisième chose troisième nit ñi nga xam ne mu lañ war a bàyyi xel mooy ki nga xam ne tey xam na ni mënut a wax ak président mac Sall bilan lenn dong la mën a def mooy jéem a indi tooxi doona ci réew mi taal réew mi hmm? te booba nag maa ngi ñaan sunu magi réew mi ñu bàyyi leen xel hmm. ndax am na fi ñoo xam ne ci sunu opposition loolu leen mën a woo ci concertation du ñu ñëw du ñu wax ci élection du ñu len dong a leen ñor mooy rendre la Sénégal ingouvernable hmm. taal réew mi ndax loolu doomu lañ jàpp ne ci la ñuy mën a amee bunt bu ñu porox ndol jërëjëf may jeexale ci ne mhm. Sénégal bi ñoo ko bokk yàlla na fi yàlla def amiin jërëjëf Bachir merci beaucoup waaw rapidement <clears throat> ma terminer euh, ci ci débat bi di ko rafetlu bu baax a baax di wax ni euh, ñoom comprendre naa leen ah. franchement soo déggee seen argumentaire euh, ñoom ñëpp de manière général en tout cas ñi may demal débat li nga xam ne te ji moo leen jaaxal mooy l'improbable second mandat maanaam tey mënuñu am deuxième mandat parce que xam nañu ci wàllu bilan bu dee dañ koy xayma xëy na Sénégalais yi gisuñu loo xam ne doy nañ leen ci wàllu wune ne ba tax ñu mun leen joxaat confiance problème boobu la ñu am. Mhm. rax ci dolli mu am ay candidats yoo xam ne dañuy susciter espoir ci peuple sénégalais ku ci mel ni Karim Wade ñoom Idrissa Seck ñoom Khalifa Sall ak ñeneen catégorie boobu tiital leen parce que gis nañ seen ancrage au niveau sociologique may daaneel ci lenn li tax Sénégal tey jii tagga témbé te Macky Sall moom moo choisir politique économique boobu pour daaneel Sénégal pour des intérêts yoo xam ne c'est des intérêts étrangers ndax tey ñu ngi fiy wax croissance chaque fois naan croissance su 7 pour cent mais croissance boobu dafa sore loolu li nga xam ne mooy suñu cëslaay koom-koom ci biir réew mi ndax 70 pour cent suñu population yi boo dee xool ci secteur primaire bi la ñu nekk waaye ñooñu. boo dee xool croissance boobu li ñu ciy contribuer matul sax 30 pour cent zéro lañ ci am. boo dee xool 80 cent ci suñu wàllu croissance tey jii ñi nekk bitim réew ñoom ñoo koy bénéficié wu. résultat gis ngeen jafe-jafe yi nga xam ne moom lay sénégalais yi dund li nga xam ne moom la ñuy digal Macky Sall et en même di interpeller kilifa diine parce que foofu lay mm-hmm. terminer moom mooy. Euh, néocoloni colonisation économique bi nga xam ne bëgg na ko def maanaam jéem a jëlaat buumu njaam yi takkalaat ko sénégalais yi. Mhm. pour des intérêts occultes yoo xam ne benn sénégalais comprendrewul lu tax Macky sàll préféré rek. étranger yi au détriment de la préférence nationale c' est un problème kilifa diine yi. Mhm. appel bi may lancé je pense que c' est un appel patriotique. Mhm. ndax réew mi toll na ci situation boo xam ne ku wax ne nekkul situation bu xaw a doy waar dafa fekk nga gumba wala doo gis. li xew ci réew mi doy na waar parce que tey am na tension politique bu am diggante opposition bi ak Macky na te Macky Sall moo wax ba la ñuy atte ni ko Pape di waxee. li li wax tout le temps wax ba la ñuy atte loolu nga bëgg a su fekkee ku nga atte nga atte bu fekkente ne da nga fekk sa ñaari doom di xeex. da ngay xool ki nga xam ne moom moo tooñ nga joxoñ ko baaraam. <laughs> remettre ko à l'ordre su ko defee réew mi nekk ci jàmm. jërëjëf Bachir wa ilaa ñun pare nañu. pour que démocratie Sénégal. merci ñoŋal ko merci jërëjëf te loolu pare nañ pour joxe suñu. jërëjëf Bachir Diawara jërëjëf Bachir Diawara mu nekkoon. jërëjëf merci beaucoup mu nekkoon Bachir Diawara bokk ci euh, comité directeur bu parti démocratique Sénégal euh, le ministre Ndongo Ndiaye di xelal président de la république ci wàllu jeunesse ak euh, tàggat yaram docteur Abdourahmane Diouf moom bokk ci kàngam yi ngànk parti bi di réew mi àndoon ci ak Mouhamadou Moustapha Diagne moom nag mooy directeur bi ñu denk wàllu formation ak communication. Euh, ci biir ministère de l'éducation nationale bokk ci Macky 2012 euh, jiite itam synergie euh, ñi ngi leen di gërëm mbokk yi mu nekkoon seen émission faram fàcce di gërëm bu baax Babacar Fall ci ni mu ni mu coordonné li di émission bi ñu ngi ko ciy jaajëfal bu baax Babacar Fall di gërëm la régie Apoulaye ak yàgg cadreur yi ñëpp ñu ngi leen di gërëm ci seen taxawaay di gërëm Mamoun itam ci Touba ameublement ni mu ñuy jàppalee ci salon yi nga xam ne moom la ñuy defee émission bi di leen jox rendez-vous àllarba bële di ñëw bu ci àllande jërë ngeen jëf audité samay doom doom ñaari doom yi nga xam ne liggéey nañu gouvernement procédure la respecté dañ na song ma dóor ay coups de sommation mooy la bëgg a rey yow yaa ko ëpp yaa ko ëpp droit nga koo rey bii nga xam ne moom lañ may fole mandat